asalaamaaleykum mbokki internet Merveille Thiès TV ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ay ca di am contentement ci képp koo xamante yaa ngi safoo seetaan li nga xamante mooy Merveille Thiès TV tey nag nee naa leen ñu ngi fi nga xamante mooy Cité Pilot mu war a bëree ak ki nga xamante mooy Boy Séréer bu Tiwaawan tey ñu daal ñëw ci open press ki nga xamante mooy Clédor bu nekk écurie bi nga xamante moom mooy euh, bëgg sa waajur Badior ñoom ambulance gis nañ fi ñoom ay dara Karara gis nañ fi ñoom cere càq ñëpp daal di génn ñëw jàppale ko mu nekk deuxième combat dinañ leen wan nag lan mooy ambiance lépp daal leen xëye fii lay xëye fii nga xamante mooy Merveille Thiès TV mbokk yi léegi léegi foto gis ngeen ko li ñu mim kanamam ki mooy Matar Wandji nekk ndaanaan boo xamante ni kenn du ko naatable ci làmb nekk champion boo xamante ni kenn du ko naatable ci làmb dañ koy bàyyi mu nuyoog mbokk téléspectateur yi seetaan leen di nuyu nuyu. asalaamaaleykum ginnaaw ma sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm sama ndey di gërëm sama baay di gërëm samay di gërëm samay am di jàmm samay xarit. ren ji xaar. dinañ jëlee li ngay xaar xanaa bari na bariwul ndax su mobilisé mu neex bu fekkee mu neex bëre mu neex man maa fi dara sax kaar fii ci kees li ma la ma sant yow ko fii indi fii ci kees. kenn amul kenn ku ko fii indi boo bëree mu neex boo xeexee mu neex boo fekkee mu neex. te ci ay grand combat laa jógee mbëri grand combat yi ñoom ma jël ma bëree sama yaay daf maa yónnee yàkkamti ma taxawal waruma ku mel ni kan ah boo limee day ne da ngay jàppal seen tànk te du ma ko jàppal tànk a yi fa war na loo bëree sama naataango la maa daan maa bëre Petit a maa daan Bastafa bu Faas yaa ngi dégg wala waaw a fils de Samba a ndax waruñoo bëre combat yi neex yaa ngi noonu grand combat général comme ñoom taaloo la dama war a defanteeg ñoom ba mu neex waa ji Sidi Diakhaté dégg nga ko léegi nee na daa bëgg a tooyal li nga xamante ne moo di xamtaan xamtaan bi gars yi dañ koo namm barki Serigne Saliou ba Dakar ñu ko may xaar ba Dakar ñu ko may xaar Sawru Fall bu Dakar moo leen tawal saaf damay defal gone bu ne jar bu cur bu gaaw balaa dara xew barki alquran dégg ko nee day defar gars lu gaaw bu wàccee jël leen ko sàmp jël leen ko boo leen ko jëlee la naa xeex bi nag bàyyi naa xeex bàyyi nga xeex bàyyi naa xeex bi damay bëri gars yi moo taxoon ñuy daw non bàyyi naa xeex bi ah. xeex bi mooy loo xam naa ne moo tax mënuma am combat ah, yàlla baax na nag njërndeem gars yi ñemewuñ ko aca ah. gars yi kon bëri nee na nee na da bàyyi na xeex bi léegi day bëri di gërëm nag sama patron Alé Niang uh-huh. sama xarit sama doom nday maa ngi liggéey usine ndox ba Kawsara mit na faal usine bi Kawsara tur waa biir man na faal la ne maa ngi leen di gërëm di gërëm sama doomu nday sama rak Bass Mbacke Cissé di gërëm sama xarit Mbaye Sall mooy sama ménagère fii ci Thiès lu ma am moom la ndax bi ma ñëpp bàyyee moo ñëw jàppale ma damaa def lu ne ci làmb fii doo fi tudd mbër te doo tudd Matar Weñ gi mbapat fu ne toj naa ko fu ne def dara am na ci loo xam ne nëkkatuma fi di ko nittali ak di ko wax waaye instant bi demee dañuy bàyyi jàppale tànk di diwuma neex ak diw loolu lañ ko teg ci def naa fi lu ne kon dama war a bëri ci combat yi ay ca mbokk daa war a bëre Matar Weñ gi champion la boo xamante ne bu xeexee mu neex bu bëree mu neex nee la bu tuusee mu neex bëri caac bëri la gars yi jël leen avance di ñaanal Clédor ndam nag lu rëy barke Sëriñ jaatee ca mbagg ya te Clédor day di jàmbaar loo xamante ni ñëpp ko bëgg bañul kenn di ko ñaanal ngir jëmmi Serigne Fallou ñu ko tuddee yàlla may ko ndam lu kawe ñortam lu gaaw firib jib jaajëf a baax di nuyu waa waaw di wax loolu mi moom wax dëgg yàlla moom entraîné na la mu war a entraîné pare nan la la la sa war lépp mi ngi koy def préparé na physique préparé na boxe préparé na ay jiw yàlla moo des ñu ngi ñaan yàlla yàlla may ñu ndam bu sedd bu bu sàndee bu soobee yàlla parce que li war si moom lépp def na ko jàmbaar la nag ñu mën a entraînement wax dëgg yàlla waaw parce que yéen ñi ko topp moom wax dëgg yàlla toppoo leen bëgg loo ko teg dina ko tegoo ñun ñoo koy entraîné mais lu ko teg lu nekk dina ko tegoo di ko ñaanal yàlla may ko ndam li si war lépp de ci wàllum loo xam ne bu ko defee rek yàlla mbër moo xam ne lu mu xalaat ko defee rek mën na am ndam def na ko ci wàllum entraînement ak ay mbokkam ak lépp yàlla nag moo des ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla may ñu ndam lu set bi barke sëñ Bamba ma jox ko si wax ñu topp si ginnaaw yéen ngeen di ay dëkkandoom di am di ay jaamam ñii di ay compagnon di tantaam ak nijaayam ñu kontaan tamit si adjoint maire teew bu fi teew parce que mënoon na bu ñu demee bureau waxtaan si ak moom mu ni ah dégg naa leen mais bu ko jaral dérangement mu ñëw ba fii bàyyi activité mi yëpp parce que xam nañ ni jamono bi ñu toll ñoom amuñu jot ñi fi teew ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm mbokki mbërëm yi parce que mbër buñ koy wax nekkul ni bi moom kese waaw di jiital tête de file bi muy Matar di si topp ñoom Alaaji ñoom Aydara ñoom Dag Dag gaa yëpp Père Laay kooku moom jarul sax li ko gërëm parce que papa yi ñëpp la di jiital ñëpp mbër yëpp parce que boo limee da ngay juum xëy na xel moom mooy loolu mais ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di kontaan si teewaay bi waaw léegi daal ñu bàyyi leen monsieur adjoint maire mu sànni si ay kàddoom parce que am na message bu mu war a jàllale te message bi muy jàllale bu ko arrangé la bu ñu arrangé parce que tamit ñoo bokk koñ bi amul lu génn koñ bi ñu nit amuñu lu génn koñ bi parce que guddi guddi si da ñax la guddi guddi si da ñax la moom fi mu mën dem bu ñëwee fi lay France ñun fu ñu mën a dem bu ñëwee fi la ñuy France kon ñu ngi koy jox kàddu gi monsieur Wade yàlla na yàlla na ñu lay ziar bu baax di nuyu di prévu do ci occasion bi di nuyu mbokk ñu gis na torom ak sangam di leen balax di leen balax di leen wax ni waaw seen mbir mu gàcce nga laam ndax di wax dëgg yàlla gëm-gëm mu ta weesu chaque jour ngay jóge si dañax ñëw

ndax suñu xol seddoon na keroog ca kàmb ya mais tey biñ dikkaatee fii suñu xol gën naa seddaat ci waa koñ li leen ñaanal li leen wax ni daal faalo boobu ngeen ñaanal ko yàlla rek nga xam ni champion la wax di yàlla li mu ko tegoo da koy teg ci wàllum entraînement doo dégg mu ni sonn naa doo dégg mu ni tàyyi naa te moo koy njëkk moo fay mucc te moo gën a sori fi ma dëkk yow rek gëm-gëm la yàlla nag moo des ñu ñaan yàlla rek ci barke Seydina Mohamed yàlla may ko ndam lu sedd

commune bi lutte moom kenn du ko fàtte ginnaaw dinañ ko déclaré au niveau de di sant bu baax Clédor di ko ñaanal yàlla di sant waa Cité Niax yëpp ak waa Cité yëpp mu samdee combat bi ñëpp mobilisé wu ñu dem hippodrome Ndiobama Koddu jàppale ko ñaanal ko yàlla may ko ndam allahumma salli ala sayyidina seen rak seen xarit euh, Clédor nekk champion

Mairie de dafa jaar ñu la lutte té inshallah man conception bi ma am ci lamb programme bi nga xam ni yaakaar mettre en œuvre dans le volet sport il faut que ñu organiser ay championnat de lutte au niveau de la commune fexe ba commune bi am benn champion communal parce que mbër yi fi nekk aussi jaadu na maire yi di organiser ay championnat di leen jàppale pour ñu mën a am ay combat te loolu ci jàppale boobu bu ñu ko defee xëy na dana gën a yaatu ba ñu waaw fay nan la ñoo ngi waa koñ bu baax a baax di kontaan bu baax a baax ah, di wax ni combat bi comme Fallou lu mu wax rek combat bi noonu la demee dañ siy woo ñëpp wax dëgg yàlla ndax Fallou dafa doon koo xam ne. Euh, li mu am moo ko may boppam ndax dafa ñëw si koñ bi dafa ñëw si koñ bi fekk magam yi xaalal ko yoon mais ba fa ñëwee topp suñu ginnaaw ba mu ñëwee topp suñu ginnaaw tànk yi ñu doon doxee mu jël ko di ko doxee kon kooku dañ koy sant bu baax a baax di ko gërëm bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla may ko ay ndami ndami ndami ndami waaw di sant bu baax dafa am lu ñuy lu ñu bëgg a rek ndax dafa loo xam ne maanaam lu yàgg la comme ni ñu ko waxee comme si bëggoon dafa fekk yàlla jiital ñu si mbir yi ñu nekkoon ci mu ñëw di ànd ñoo xam ne suñu xel dafa dal si ñoom di ko tàmbalee si Mata Mbaye ambulance ay dara ñoo Mata weñ gi ndax dañu doon ñoo xam ne yàlla daf ñoo boole depuis yàgg na ñu bokk ñun ñëpp lu ñuy yëngatu mais dafa mës a ndax su nice woon tey jii suñu ko bu ñëwee nekk foofu dinañ ko ne oo oh, foofu kat ba dëgg fàñ wax ko liñ fa xam mais mosu ñoo xam si ñoom leen yàlla dañuy boole ñuy daje ay mbapat mais mos ta ñaaw kon dañ bu baax a baax di leen gërëm a baax di leen wax ne Fallou ñu gën jàppal Fallou bu baax a baax comme ni ñu ko doon defee ak ñun Fallou nag li ñu koy wax rek waa koñ bi la ñuy woo bàyyiwuñu kenn góor ak jigéen mag ak ndaw ndax Fallou li mu am si koñ bi moo ko may boppam ndax xale bu ndaw mun naa taxaw mun na kaa taxawal si koñ bi te loolu dafa baax si sport nit booy sport doo yëg sa bopp da ngay woyof jox ñëpp ci xam ne lamb dafa métti te ginnaaw da ngaa soxla am mbooloo kon Fallou fi nga teg sa tànk dama lay ñaanal ne la bu joxol ñëpp ci comme ni nga ko defee nii te di wa wa koñ bi yépp di wo ñëpp si na ñax ñu kenn ay see balabé ay see dekkando xam nga mamba afrika xam nga ñëpp ñoo leen di wo bu baax baax ñu jàppale suñu doom seen doom seen mag seen mag kere do yalla may ko ndam le bis inshallah koñ bu kenn des na ñëpp jóg loolu mo lay kaddu ci kàddu di nga ñaanal yalla yalla na yalla may ndam li ko mu continuer barke sëñ Touba kontaan nañ lool jaa ngeen jëf ay ca bi moom sa xëy foofu ko foofu moom ay ca bi moom xëcc bu dabbul di ko maaf yéen doon waaye balaa boobu xam nga lu ma tëgg rek jëppalem ay ca cari neex na tax moo la ca fa ñu def baar ki nga xamante ni moo nekkoon ci caméra bi di baro macha allah di nekk caméraman yi di def ak seen ngeen àndal ci présentation ay ca di nuyu bu baax a baax di nuyu bu baax a baax sama coiffeur la ku bëgg ay ca mbokk téléspectateur bu Wesaf mer day Thiès TV ah, ba léegi mu ngi tase ki nga xamante ne mooy général bu Malika numéro 2 nekk champion boo xamante ni kenn du ko naataabale ci làmb dañ koy nuyu bàyyi ko mu ndóol mbokk téléspectateur général mi lañ la. waaw fay naa la sëñ bi waaw grand ma sant yàlla bu si andi sant suñu ñaari waajur di sant képp koo xam yaa Malika sant sa waajur waaye kii bëgg sa waajur. di nuyu yow di ko teg si ci loxo ambulance numéro 2 ambulance numéro 1 di nuyu sama gosu ay grand la ñoom ay dara ñoom dag-dag bàyyi ma kenn waaye gir ba di nuyu ñëpp di nuyu sama waa koñ waa Kepaas yi di nuyu Jibi Ndiaye mi nga xam ne ci chaque jour day sonn man sama combat bi di ko waaj la wala ba commencé taxee ba léegi amul jàmm chaque jour da ciy sonn day dagg liggéey bi ñëw di di ma jàpp ci contact yi di sant ñëpp ñoom alaaji gaynde di sant sama doom nday Fall Kélé Dóor combat bi mu jëm sant ñu ko ñaanal yàlla ko yàlla yàlla ko yàlla may ndem ko xam nga ki ngay bëreel non ki ngay bëreel xam naa ko bu baax lan moo tax nga jël combat bi non combat bi li ko li ma jël combat combat bi léeg-léeg mais biir maa ngi moom. mbapat lan dayee bii ah, temps yi passé nii tere Arsenal lu mu dund la ma dund luur mu daan ma daan ñu dem ñu dem ñoom dañuy faral ñu war a dayee ñu war a dayee léegi lamb yàqu quoi mu am coow nekk saa yi lu ma dëkk di benn promoteur ñëw li ma ma sama doomu ndey moom loo ma ma loo ma digal dama koy def ma jël combat waaye bu ma barke alxuraan ma jël combat di woo sama waa koñ nag waa Képargé barke suñu barke alxuraan day jógee Malick ma ñëw billaay walaay taala ba combat taxaw ba léegi sa jour mu envoyé ma xaalis di sonti combat billaay walaay di ma woo di ma conseillé di nuyu sama waa kër di nuyu sama papa sama yaay di nuyu ñoom leen jëlee jar laa ñaay mënte ñoom seet vie jibi ñaay nongo bàyyi ma kenn waa Kepaay ñoom bàyyi ma kenn di nuyu ñëpp waaw lan ngay tàggatoo ak mbokk téléspectateurs yi lay seetaan a xam man amal leen amal leen lu may tàggatoo a yéen a ko génne di leen sant di leen gërëm bu ñu sama doomu ndey di kontaan ci yéen nag di leen ñaanal télé bi yàlla ci sa kanam kanam euh, bu bu Malika numéro 2 la moo war a daje ki la tabaski mu war a daje combat boo xam ne combat bu neex la yéen mbokk nee naa leen lamb la joo xamante ni général Malika ñaar si ak ñaari parti alxuraan kay li ma def si yàlla ma ko compter te dama yenn mit ay rakkalaa dama yenn mit billaahi wallaahi taalaay barke alxuraan kay damay wàcc bu ma mën a reer ndax sonn barke alxuraan ma mat naa damay yee fa yar suñu kër laa yóbbu mat naa la yóbbu billaahi wallaahi taalaay barke alxuraan lan ngay yóbbante bee bee mi ngi takkoon yéen a wër ci mbedd yi fu leen koy wax mu dëkk safar amul lay wax ak moom na ñëw dëgg ba moom ma jàpp ko daan ko la xam barki alquran ma jàpp ko daan ko jënd bu rëy barki sëriñ naa ma xam maa ko daa ko bëre li ma mën a doon li ma jël jël ko damay génn dem ci àll bi di bëre yi billahi wallahi taala damaa bëre ba sonn barki alquran di nuyu ñëpp nag di nuyu sama waa koñ bàyyi ma génn meere ñëpp dañuy sonn jëm ku dëgg ba dëgg waaw ayca jaajëfal nañ ko bu baax a baax moo doon ak nga xamante ne moom mooy général Malick Kédougar moo ngi si dugg ànd ak ñi nga xamante ni ñooy waa Merveille Thiès TV ñu daal di ñëw fekk ko si nga xamante moo ko ñun fii fekk maax ñu représenté aussi fii lay représenté mu war a dajee ki nga xamante ni moom mag nekk fële ca Tiwaawan avant tout bala may dugg si question yi dama koy nuyu Clédor nuyu leen la bàyyi leen nga nuyoo ak mbokk si dëkk jàmbaar ñoo ngi lay fay di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu waa Cité ñax yëpp waa Cité Pilo waa Buntu Dépôt waa jàmm gën di nuyu ñëpp waa Mbambara di nuyu bu baax a baax waa Manna di nuyu tama waa Ikri yëpp di jiital ci nuyoo bi suñu tête de file ambulance di ko nuyu bu baax ak suñu kóotu Père Laye Ndiaye. Aydara Karara Dak Dak di jël nuyoo bi di ko teg seen loxo ñoom ñëpp di jaaree nuyoo bi seen loxo ñoom ñëpp nga nuyul waa équipe bi yëpp di leen ñaanal jàmm bu baax a baax di ko tàkk ci ñoom. tey kële door bi ñu ñëwee ñëpp daal di génn waa koñ bi yëpp daal di génn taxaw kële door lan nga yëg kële door fii tey nga gis ay ci mën ngaa ñëw nii voilà tey nga ñëw. génn waa koñ bi génn si dëpp ñëw buntu depp waa Medina Fall ñëpp daal di génn nga gis koñ bi fees dell lan nga yëg Clédor waaw comme li ma daan yëg rek laa yëg parce que dara gënul neex nga woote ñëpp ñëw wuyu si la di nuyu bu baax a baax nag sama papa yi ci kër gi yëpp di jiital ci nuyoo bi papa Ousmane Diouf ma nga biir Guinée Bissau di ko nuyu bu baax a baax ak ay rakam Assane Diouf buuba di nuyu bu baax a baax père Fara ñoom ñëpp wax dëgg yàlla combat bi ba mu taxawee ba léegi ñoom ñëpp kenn nekku ci jàmm ku nekk a ngi dugg foo xam di ñëw di nuyu bu baax a baax sama gannaaw mu Ndiaye Issa Pouy parce que tamit ku ñeme dañ laa déy ñoom ñoo ñëw nekk sama ginnaaw wax dëgg yàlla dooleel ma lu ma dugg ñoo nga ca di nuyu sama baay faali bu baax a baax a baax di nuyu sama baay faali waa Sire Ñax waaw ñoom Vito di nuyu ñëpp ñoom Baye Jaaji ñoom ñëpp maa ngi nuyu ku lim doo juum ñoom góor baax ñoom Pasoumaré di leen nuyu bu baax a baax a baax parce que ñoom Aliou Mbada wax dëgg yàlla dañ may woo seen kër di ma wax lu nekk ñu di ma ko defal wóor na yàlla ba combat bi taxawee ba léegi amul lenn loo xam ne maa ko defal sama bopp amul lenn loo xam ne maa ko ñëpp dañ lépp dañ ma ko defal kon ñooñu amuma seen fay di leen baax a baax waaw Clédor da am victoire bu am solo nga jógee si victoire tey nga war a demaat ci deuxième combat est-ce que xam nga li lay xaar waaw li may xaar xam naa ko bu baax a baax parce que lii rek lii ku muy xaar rek ak lépp looy dem war nga cee duggee jom ak ngor ak fulla ak fayda parce que loolu lañ ma yabee sama waa écrit loolu lañ ma yabee sama waa ko itam loolu lañ ma yabee kon nag loolu rek ma war loolu rek laa war a def. ki doon xam nga ki ngay bëree mooy kan. non kooku xam naa ko nii rek parce que ñun kooku suñu ba teguñu ko ci moom wax dëgg yàlla. nga xam nga waaw lamb la làmb la man est-ce xam nga ñi ma daan man ah. ak ñi ma ak ñi ma tafeel ci mbapat yi ñan lañ macha allah dañ koo gis ci mbapat bërki dem boo njaay ci lamb ji nga xamante ni nii mooy waa prestige biñ tëggoon moom moo yenu nag bi ci ay mbapat lañ ko gis te mbër dañ ne compétition mu yàgg compétition yàgg compétir di bëre mbër mu ne koroog mu daal di daan ki nga xamante mooy Fallou Ndiaye jël nag ba tey nga war a daje ki nga xamante mooy booy séeréer nekk champion boo xamante ni Tivaouane xaar na ko nga war a bëreeg moom nga ni xaw ma ko est-ce que loolu du risque ci yow. non man dara du risque man man xale laa. xale laa heure bu ma xëyee maa ngi ci li ma war. kooku noonu kooku du cent franc man xam naa ko bu baax a baax a baax suñu waa écrit suñu waa écrit ñi ko ci daanul bëriwul. ki ci gën a néew bëre daan na ko. Mhm. kon nag kooku taxu ñoo jug da nga ne moom ñi mu daan. mbapat mi ñu mujj a fii Thiès man maa ko jël. Mhm. lu amul seere baaxul samay course ngi nii ñu ngi nii duñ ma bàyyi ma fenn sama kanam man maa jël poids lourd bi mhm. loolu yàggul dara kon nag kooku noonu ñi may tawee ci àll bi duñu ay moromam maa ko ëpp doole maa ko mën te bu ati suuflee lépp lu am man maa koy def ndeysaan dégg leen ko nee bu lépp moo ko mën moo ko doole di stade bi boo xamante ne nii macha allah Clédor ñëw xoolal fii ah. nga daal di daan li nga xamante ni est-ce que xam bi boo ko daaneel fan la la mën a yóbbu. waaw lamb moom moo demee noonu lamb moom dañ ne daanu dem da daan dem daanu xaar te bu soobee yàlla boo séeréer boo séeréer dama ne ko moom du puus du paas lépp man maa koy def moom na taxaw rek kooku day xaar waaw kooku day xaar waaw du ma ci lenn tolluwuñu lenn ku gën a entraîné rek ku gën a entraîné ku gën a am doole yàlla la may na ci combat bi kon Clédor Balenty ngay woo ci ci combat bi. waaw combat bi ñi may xaaruñu sax ma woo leen parce que dañ maa ba noppi am na ni woo parce loolu rek dafa neex di nuyu bu baax a baax waa keppaar gi waa ma na faal yëpp parce que wax dëgg yàlla ku ne xam ne fii ak man na faal sore na ñu dagg seen yitte yëpp ñëw di jiital ci nuyoo bi seex mu nuyul ma ñoom ñëpp jël naa nuyoo bi teg ko loxo seex ak Père Laye Ndiaye papaam wax dëgg yàlla di kenn ci ñun moo ñu dalal baax taa njéemi maa ngi koy bu baax a baax a baax ak ak waa këram yëpp waa gi ak Cheikh Lo ñi fi jógee parce que indi na fi ay teraanga yu dëgg yàlla waaw parce que bañ ko ko wax ko naa wax leneen mais dafa ñëw lu ñu bëgg ak Pape Latir Ndiaye Pape Latir Ndiaye jàpp bu baax a baax jox nañu xaalis bu bëri wax dëgg yàlla ak Mamadou Lamine Tankare suñu papa Mamadou Lamine Tankare ñu ngi baax a baax ak sama turandoo ki xam ne moom laa tudd waa jàmm gën yëpp kala door defal na ma lépp jëndal na ma samay billet wax dëgg yàlla ne ma def dara entraîneur rek laa sant di nuyu nag waa Siré Ñax parce lépp ñoom la wax dëgg yàlla waa Siré Pilo waa Siré Ñax lépp ñoom la ak waa Siré Pilo wax dëgg yàlla parce que ñoom ñëpp ñoo booloo nekk sama ginnaaw ku ñime rek dañ laa déy wax dëgg yàlla di nuyu sama yaay rek saar bu baax a baax a baax a ay xaritam yëpp ñoom Fanjaay di nuyu waa waa Salba Mbambara bu baax a baax a baax di nuyu a Baba Galle yaay Fatou Fatoumata maa ngi koy nuyu bu baax a baax parce wax dëgg yàlla lépp ñoom ñëpp rek maa ngi leen nuyu parce waaw di nuyu ñoom maman seen ñoom ñëpp ay xaritu rek saar yëpp ñoom caara ñoom caama Fanjaay Fanjaay nag moom moo yor ndékkili ba combat bi taxawee ba léegi moom moo yor ndékkili kooku xam nga ne kon kooku kenn la ci mat balaa may yeewu fekk mu mu teg sama ndékk yaay Fanjaay maa ngi koy nuyu bu baax a euh, lan nga koy yóbbante ban kàddu nga koy yóbbante waaw di nuyu Papa Assane Diouf baax a baax ak waa Kaata ak ñoom grand Ali yëpp eh, wax dëgg yàlla waaw parce que ñoom dañ maa jàppale bu baax a baax a baax mani mooy séeréer bu ñu la jàkkaarloo ak nga koy wax moom booy séeréer mu ngi lay ma koy wax bëriwul ah. koo xam ne bu jàkkaarloo ak yow du la ñemee xool bu baax kon kooku li ma koy wax bëriwul jeexee wala bëri wala dóor lay jeexee wala bëri lay jeexee. boo séeréer bu xeex man parce que moom ñemewu ma man xam naa loolu ñemewu ma bu xeexee ma duma ko bu bëree ma daan ko fa damm ko. waaw di nuyu bi bu baax a baax a baax a baax a baax. di nuyu sama papa Ousmane Diouf bu baax a baax mi ngi ba Guinée Bissau di ko nuyu bu baax a baax xam naa ne xelam ak xalaatam lépp mi ngi fii nii ak soxnaam Racky di ko nuyu bu baax a baax di nuyu sama maçon yëpp nag di nuyu sama maçon yëpp wax dëgg yàlla parce que dañ maa jàppale bu baax a baax di nuyu suñu père Pape Diakhaté wax dëgg yàlla ak sama xarit Aliou Mbada parce que moom tamit jàpp na ci bu baax a baax day liggéey ba wàcc Aliou day liggéey ba wàcc yóbbu moom ba ba ñuy nekk di représenté ay Cheikh Sidaat Cheikh Sidaat wax dëgg yàlla parce que moom tamit day xëy ba wàcc ànd ak man di def ci lépp di nuyu supporter yëpp nag di nuyu supporter yëpp sama supporter yëpp ak tante euh, soxna Assane Diouf maa koy nuyu bu baax a baax a baax borom mu xam say mooy moom lépp moom la wax dëgg di nuyu di nuyu koo xam ne ndeysaan koo xam ne kenn la ci man koo xam ne kenn la ci man wax dëgg yàlla kooku su ma waxee ba pare te tudd ma ko góorewu ma muy sama booy aada wax dëgg yàlla sama xarit la sama doomu nday la parce que bu ma farle fu ma dem moo ko fa wax dëgg yàlla fu ma dem maa ko di nuyu di nuyu papaam baax a baax a baax di nuyu Pa Amar baax a baax parce que ba dara du dara moom ci la nekkoon ba léegi di nuyu soxnaam bu baax a baax di nuyu waa kër gi yëpp ñoom Baye Jaaji ñoom Mama Xuja wax dëgg yàlla di nuyu dëkkandoo yëpp wax dëgg yàlla di nuyu di nuyu Père Demba bu baax a baax a ak Père Cheikh Diouf Père Ousmane Lam wax dëgg yàlla maa leen nuyu bu baax a a baax dëkkandoo yëpp di jëkkëraa wax dëgg yàlla ba affaire bi defee trois jours la indi matériel am sono yi ngeen gis fii nii sono yëpp moo ko sama tëggkat yi waa Ngéwél ga maa leen di nuyu bu baax a baax waa festival waa festival maa leen di nuyu bu baax a baax a baax waa Ala Jakarta yëpp di leen nuyu di leen woo ci combat bi ak buntu dépôt waa mën na faal ñëpp ay raay ba ñoom ñëpp maa leen nuyu bu baax a baax a baax ak are jàmm gën are mbambara are dëkkandoo ñoom ñëpp wax dëgg yàlla dañoo jàpp ci combat bi kon ak waa koko bi maa leen nuyu bu baax a baax waa dëkkandoo di leen wax ne combat bi seen combat la nañ bu baax a baax a baax di woo yëpp waa ASC Balabe di woo supporter yëpp ñu ñëw fii nii añ ci añ yi ci kaar yi àgg jàpp boo séeréer duuma ko daan ko indi ndam li Siré Niax fii parce que ñun ay kër ci kër ci surmal doon yi ki nga xamante ni mooy Clédor moom lañ seet si woon mu war a daje ki nga xamante ni mooy Boy Séréer kër nga xamante ni moom mooy hippodrome Diaw Koldou organisé par Pape Abdou Fall production mu war kaa tëgg li nga xamante ni mooy le 10 juillet kër nga xamante ni mooy hippodrome Diaw Koldou ki nga xamante ni moom mooy Clédor war a daje ak ki nga xamante ne nii moom mooy Boy Séeréer bu Tiwaawan di leen wax gis naa leen si kiraat naa leen kii tombera si les étoiles et nous serons tous des stars. di nuyu waa koko di nuyu waa café bu baax a baax ñoom Cheikh Mbaye ñoom Omar Bass wax dëgg yàlla leen woo ci combat bu baax a baax a baax ñoom ñëpp ñoom sëy sëy ñoom laa entraîneur matinal gi ñoom sëy sëy ñoom ñëpp maa leen woo ci combat bi ak sama boy maa leen di woo di ñaanal sama doomu ndey ji général Malika dafa am combat lan tamit tabaski yàlla may ko ndam bu baax a baax a baax di nuyu sama boy yëpp wax dëgg yàlla waaw di nuyu président dëkkandoo lokot wax dëgg yàlla mu ñëw jàpp ci combat bu baax a baax a baax maa ngi nuyu ñëpp ku ma tuddal sa tur rek wax dëgg yàlla ku ma tuddal ku lim doo juum dafa doon matal en maa ngi jégalu bu baax a baax di nuyu ñëpp nag maa ngi nuyu ñëpp waaw gis ngeen ko damaa a la ci man sama doomu ndey la wéy laam di nuyu soxna May ak sama rakk yi di nuyu bu baax a baax di nuyu waa Tamba yëpp waa Touba waa Dakar waa di nuyu ñëpp waaw di nuyu wa Thiès baax a baax waa Sëriñ Ñax moom waa Sëriñ Ñax moom awma seen fay wax dëgg yàlla di li ma leen yéene rek indi leen ndam li fii ci koñ bi ñu ko fii incha allah samedi ma dem jëlee ndam li indi leen ko fii dimanche ñu feete ko fii nii incha allah ay ca gars yi ñu ngi leen jox daj dig daje euh, li rajo fa li nga xamante ni mooy ñu ko doon doomu ko bi diggante Clédor ak ki nga xamante ni mooy Boy Séeréer moo kii jaajëfal nañ leen bu baax a baax a baax fils de la Lune si diran la Lune di dem waa si des étoiles on est sur le bés des stars pays Isa daa defar pays Isa daa defar alhamdulilah mbokk yi jaajëf si la naar Boy Thiès TV Isa Clédor Clédor Clédor Clédor Clédor Clédor Clédor Thank you.